al ma seen seeni nopp ma xibaar leen li ci yéenekaay yi dañu koy door ak laas mi ñuy xibaar ni dialogue national ba ngir yeesal ak soppi sunu justice réew tàmbali na niki démb waaye naka jeexagul ndax yéenekaay bi nee na juróom ñettan rekk lañu am ngir dalal xelu askan wi ndax talaata bii di ñëw ci la waa commission bi di joxe seen rapport point actu di ñu xamal ni président Bassirou Diomaye Faye kàddu askan wi la bëgg dégg ci mbir mi ndax nee na système judiciaire bi soxla tabax waxaat ko te loolee waxtaan bu ñépp bokk képp mën a tax ngir ñu daal di koy réussir mu dolli ci ni yoon ci doxalinam la ñuy xamee ba xam dëppoona ak li état de droit bëgg ba tey yéeni kaay baa ngi ñuy xibaar ni Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye Oumar Youm ak Lamine Thiam euh, ñoom ñooñee nag ñoo nga fa woon waaye Idrissa Seck Ousmane Sonko Bougane Gueye ni xalifa Sall ñoom teewuñu woon ca dialogue ba Aminata Touré ci la mandat nee na justice nekku fi rek pour fayantoo euh, maanaam règlement Bassirou Diomaye li mu dund uh, du ko mës a loo ñeneen ñi Guy Marius Sagna ci Vox popule moom it xamle na ni benn objectif képp dong la ñu bëgg te mooy rendre rendre juste la justice uh, maanaam yoon tege ci yoon en tout cas regard nee na Diomaye justice sans faille la bëgg maanaam justice bu amul benn rëq-rëq ba tax muy artu ci tribune yéenekaay ndax justice bi ñu ne politiciens yi ñooy woy di ko contrôler li mu ci wax rek mooy uh, nañu moytu benn république des juges justice bi ñuy wax bàyyeegul activiste bii di Bah Diakhaté ndax soo su nee na kaso la ñu ko jëlee yóbbu ko ca dikk pour déglu ko ci benn plainte bu ñu def contre moom waaye nee nañu ci kanamu enquêteur ya daa mel ni ku dee ndax bañ dafa bañ ne du wax ne du tontu seen ay question ndax nee na mbir moomu ñu bëgg koo dégloo ca atub deux la xewoon te loi d'amnistie bi niilal na ko li loi d'amnistie bi niilalul mooy coow li topp doomu Mansour Faye bi révélation ànd ñu ci ay leeral ci koppar gu bari moom euh, yéenekaay bi ne moom Aïssatou Faye vingt et un millions la yoroon ni bi ko policier yi di arrêté ngir contrôle ci noonu la ñu jëlee ci moom trois cent mille ci la ndaw si dem ci commissariat urbain ba ca Kébémer euh, pour nag naqarlu xaalis bi ñu jël ci moom gannaaw bi ñu defee enquête ci lañu ko bàyyi mu dem euh, ba noppi suspendre ñaari policier yi Cheikh Issa Sall di DG CDC ba woon yóbbu na waa sans limite seen ci yoon le peuple ko xamal moom maire bu buur bi nee na daa sonn si ay sos ak tuuma yi nga xam ni tegewul fenn ñu koy teg ci deram te honneur am ak crédibilité am du ko fowee ndax amul njëkk lii quotidien ne ma kaay ma wax la li waral coow li dëgg-dëgg te mooy suuf ba nga coowal suuf bi nga xam ni moo am ca caisse de dépôt et de consignation Fadilou Keita di njiit lu bees li moo yóbbu ci yoon Mohamed Silla ndax benn marché trois milliards bu ko CDC joxoon te àggalewu ko gannaaw euh, bi ñu ko woowee ca dikk ba noppi déglu euh, ci talaata ji daa tudd turu Cheikh Issa Sall ci coowal suuf ba tax mu saisir avocat wam di maître El Hadji Diouf te nee na dina porter plainte bës ni tey gannaaw bi nga xamee ni moom ceeb yokku na l'informateur moo ngi ñuy xibaar ni ci manqué la jëm ndax importateur yi bëgguñu jël benn risque di importer laataa nag ñuy wàññi njëgal dund gi comme ni ko njiital jëwrin yi di Ousmane Sonko waxee woon jàkk bi nga xam ni moom la Cheikh Oumar Diagne ne daa bëgg ñu amal ko ca pale ba loolee l'éveil nee na du idée bu baax maanaam du xalaat bu baax ndax mën naa andi ci laïcité bi am ci Sénégal ndax daa fàtte ni réewum Sénégal du réew islamique waaye nag réew laïc la te loolee day wane ni rek dañoo bokk ci réew mi ak yeneen i diine ndax mën naa andi jafe-jafe bu baax a baax général kande mi nga xam ne dañu ko yóbbu ci ambassade bu Sénégal ba ca Inde moo ngi koy naqarlu ci le quotidien ba tax mu ni dina attaqué décret bi nga xam ni moo ko tabb attaché militaire à New Delhi général Magatte Ndiaye euh, moo ko daal di wuutu ci anniversaire njiitu réew ba woon di maître Abdoulaye Wade la ñu koy jeexalee yéenekaay bi nee na tey la président wadd am quatre-vingt-dix-huit ans ba tax ñu koy wax rek maam booy happy birthday wala joyeux anniversaire fii la ñu ndar keppeli ci yéenekaay yi ma delloo leen seen nopp ba ëllëg ak jàmm ci Sénégal 5 TV jërë ngeen jëf